Pape Alé Niang téyeti nañu ko maître Ciré Clédor lii bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy layal waaye nag lii métti sénégalais yi mooy Pape Alé jàpp bii ñu ko jàppaat dafa nekk lu prématuré ndax moom ça ne fait même pas une semaine ba ñu ko libéré ak tey ñu mayoon ko liberté provisoire mu nekkoon sous contrôle judiciaire waaye tey delluwaat na ci loxo yi yoon dara waralu ko lu dul benn publication boo xam ni moom defoon na ko ci Facebook doon xamle ne njiital police di bokkar Yàgg moom daa jël ab njabootam yëpp daal di leen rawale fële ci États-Unis li ko waral ci kàddu yi Pape Alé Niang mooy que ne moom dafa xam risque yi waaj a am ci Sénégal par rapport ak ñoom forcing ñu fi bëgg a def ci lu ñeel wàllum troisième daal Pape Alé loolu mu def moo tax juge bi ngeen di gis ab nataalam di wuyoo ci ma du sekk mu daal di wax ñii di waa DIC ñu daal di koy jëliwaat Pape Alé actuellement delluwaat na ci loxo yi yoon mu nekk lu metti Sénégalais yi lool ndax nag kenn yaakaarul woon ni moom Pape Alé dina teel a delluwaat kaso par rapport ak li nga xam ne moo di taxawaayam fii ci Sénégal moom nag bi mu génnee wax na ko nee na man je suis combattant damay xeex ba keroog may sangoo suuf du ma nangu benn yoon ñu may opprimer wala di ma def looloo xam ni àndul ak sama ngor àndul ak sama dignité dignité wu sénégalais yëpp actuellement mi ngi en ndax nag léegi ngir ñu jàpp la dafa yomb lool. il suffit tout simplement nga yëkkati ay kàddu yoo xam ni xaw naa méngoo ak lu neexul état yow nga daal di gis waa dikk wala waa gendarmerie yi daal di ñëw jël si la. il suffit tout simplement nga am benn taxawaay benn posture boo xam ni. ce n'est pas favorable ak nguurub Sénégal nga gis waa dikk wala waa gendarmerie daal di ñëw jël si la ñu ni mel nag kañ lay jeex Sénégal kañ lañuy dugg ci am réew moo xam ni démocratie dëggantaan dañ koy dund waaye itam di dund lu jëm ci wàllum liberté d'expression di dund liberté de la presse tey jii bëri na ci ñoo xam ni ñemeetuñ yëkkati yenn kàddu yi. dara waralu ko lu dul oppression bi nga xam ne moom moo am ci réew mi dara waralu ko lu dul nooteel bi nga xam ne sénégalais yëpp gis nañ ko ci lu jëm suñu wàllum justice. justice boo am indépendance la ñuy war justice boo xam ne dafay tëddee njaaxanaay moom la sénégalais yëpp daal di bëgg tey jii maître Ciré Clédor Ly amati na ab liggéey ñoom boobu ba tey ñu ngi ci nekk di yéeg ak a wàcc dossier Sonko Adji Sarr ñu nekk ci nekk itam ci bii nga xam ne moo ñeel Pape Alé di wane encore une fois que ne ñoom maître Ciré Clédor Ly ñu ngi def liggéey bu mucc ayib waaye nag sénégalais yëpp ñu ngi xaar Pape Alé fan lay mujjee ñi ngi ñaan nag képp koo xam ni da ngay liggéey ci lu jëm ci wàllum justice nga doxal yoon magistrat yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk suñu àpp justice ñu ngi leen di ñaan à que jël seen destin en main te xam ne ñoom ba jàng di réussir bay nekk li nga xam ne moo di magistrat amul kenn ku leen jàppale woon seen fulaay bopp seen faydaay bopp seen compétence moom moo leen ko may kon loolu nga xam ne la leen ñëpp xamee muy seen honneur ak seen dignité ñu ngi leen di ñaan ngeen conserver ko waaye itam bu leen nangu kenn ku leen dugal ci mbir moom woo xam ne leer na leen ne wàllum politique la leer na leen ne lii sonal doomu aadama dong lañ ci jublu ndax Sénégal gi kat ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye nag bu réew mi amul sécurité bu réew mi amul liberté d'expression et de pensée yaakaar nañ ne dañoo war a soppi turum démocratie bi yóbbu ko ci turum dictature defe naa moo ci gën a gaaw bu ko defee ñëpp daal di conformé wu benn yoon ca la nga xam ne moom la président de la république daal di bëgg sinon nag bu fekkee démocratie rek lañ fiy dund dañ ko dund mu jaar yoon ku ci nekk la nga xam ne moom nga moom ñu bàyyee la ci nekk itam li nga xam ne moom nga war loo ak le Sénégal nga def ko ci na mu wari waaye saa su ne ñuy gis ay anomalie yoo xam ne dafay jugee koo ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk suñu àpp justice sénégalais yi nag ñu ngi ciy àddu saa su ne war nañ ñoom sax au moins di génn léeg-léeg di waxtaan ak sénégalais yi bu ko defee ñuy xam exactement lan mooy xew ak itam ñoom na la ñuy doxalee seen ab liggéey bu ko defee loolu day créer benn climat de confiance boo xam ne day am seen ab diggante ak sénégalais yi te loolu la ñuy sàkku ndax sénégalais yëpp jaaxle nañ xamuñ fa ñuy teg seen tànk te bu sañoon tey am ay leeral yoo xam ne day tukkee ci justice di tukkee ci état di tukkee ci assemblée ba di tukkee ci collectivité territoriale yi ngir mën a xam naka la ñuy def ba développement bi ji yootu ñu mën cee jot loolu tamit day permettre sa population day xam exactement lan moo xew ak ci lan nga ne bu ko defee benn questionnement bi du bëri ci réew mi waaye itam ñu bëri dañuy xam à l'avance ce qui se bu ko defee tooñ du ci am mbetteel itam du ci am waaye nag Sénégal communication ci côté boobu te buñ sañoon mooy gën di am procureur de la république na jël ay responsabilités am par rapport ak yenn fee nga xam ni mi ngi am ci réew mi ndax léeg mu jéggi dayoo te parfois mu yegg foo xam ne mënoon na faa bañ a yegg tout simplement il faudra que Sénégal ñu am benn unité bi ngir ëllëg ñu mën a accéder ca la nga xam ni moom la ñu soxla lu ci mënti am mooy Pape Alé Niang ñi ngi koy ñaanal mu gaaw génn ñi ngi ñaan ma de dépôt bañ cee am ndax bés bu ci amee dina gën a compliqué te bi mu fin indiwaat ay problèmes yoo xam ne day am ci rëkk bi wax dëgg kenn soxlawu ko te bu ñu sañoon jàmm am ci réew mi nañ libéré Pape Alé Niang bàyyi ko mu dellu si njabootam te ñu jéem a jublu ci naka la ñuy def ba jafe-jafe yi Sénégal yi di dund ñu daal di koy saafara ndax loolu moom mooy priorité loolu moo am njëriñ loolu moo am sens leneen li ci topp nag dinañ ko lijjanti libéré Pape Alé Niang pour qu'il puisse aller se soigner en même temps être à côté de sa famille la mérité mérité wul benn yoon di delluwaat prison